Tantakha Ndiaye ñu ngi lay nuyu. Ah, ñu ngi lay fay bu baax a baax. ngay taskatu xabaar euh, ñu ràññee la loolu ci wàllum tàggat yaram. Mhm. voilà euh, ñuy waxtaanee rek coupe du monde ñi nga xam ne seen dégg-dégg demewul noonu tàmbali na mhm. euh, ca Malaisie depuis le 23 septembre euh, suba samedi 7 octobre daanaka ci lay daal di jeex waaye boobu ba léegi Sénégal mu mel ni mu ngi wonee mëninam ci boobule mondial naka nga jàngate performance suñu gaynde yi parcours bu baax la ñu def parcours bu baax la ñu def parce que boo xoolee équipe bu mel noonu daal di dem ba demi-finale ci euh, championnat du monde dafa nekk loo xam ne lii euh, ah c'est ça c'est résultat bu mag a mag la un résultat la mm-hmm. ndax nag ñi ñuy dajeel ay kàngam lanu aussi hein ah, parce que boo demee éliminer ay États-Unis nga dajeek ay yeneen équipe yu mel na moom euh, États-Unis ba ñëw nag ba di match nul ak ah, parce que ba tey amaguñu amuñu defet boo xam ni bii Euh, si temps réglementaire amuñu benn défaite la ñu am moo di biñ leen gagné demi finale yi mu des match à résultat immédiat sinon seen parcours yëpp sans point à part ils ont tenu en échec équipe bu Ukraine mi nga moo di l'équipe championne paralympique alors ça c'est tout à fait normal en tout cas def nañu parcours bu baax a baax fii mu nekk nii li ñuy def rek moo di di leen féliciter parce que vraiment c'était pas évident compte de euh, seen jeunesse li euh, nga xam ne ñu ngi soog door d'ailleurs euh, ci compétition boo xam ni euh, surtout bu mel noonu surtout nag rawatina nga dal di jóge d'un continent dem ci beneen continent mu di au niveau mondial. tey mu mel ni daanu nañ demi-finale lan nga yaakaar ni rek moo doxul ba tax ñu perte ci kanamu Ukraine. waaw li ñu yaakaar ni moo doxul moo di d'abord xam nga équipe boo ko rencontré une fois nga war a dajeek moom une deuxième fois c'est extrêmement difficile. Alors, il est vrai que foofu nag c'est euh, le schéma tactique des entraîneurs. Mhm. parce que ci biir dana ko xamante kenn ku ne joueurs yi dana ñu xam ni ban système de jeu la ñuy la ñuy def. wala alors schéma tactique yooyu nag kooku ça dépend des entraîneurs. ñoom ñoo réglé loolu sur le terrain parce que boo xamee ni kii système bii la jeu pour déjouer système boobule lii ngay def wala lee ngay def ah, aujourd'hui c'est vrai que daje nañu ak Ukraine mais li ma gis itam moo di peut-être des occasions ratées mais aussi parce que xam nga match la woon boo xam ni Kébé c'est gagné au mental mhm. au mental mhm. xam nga euh, euh, match bu njëkk bi Sénégal ñoo jëkk marqué Ukraine c'est-à-dire ñëw égaliser Sénégal marqué waat Ukraine égaliser mais bi yoon Sénégal moo topp ci sport mhm. parce que Ukraine moo jëkk a marqué mhm. alors c'est tout à fait normal que yu mel noonu bu amee évidemment euh, c'est le haut niveau mondial bu fekkee ne nekk nga fa li ci des rek moo di mental bi nga xam ni moo la war a jóg et puis compter aussi sur une chose moo di la chance parce que bu ngeen demee ba nga xam ni dem ngeen ba match bi jeex léegi ci temps réglementaire bi kenn gañewul ngeen dem prolongation war a dem au tir au but mhm. ah tir au bi itam dafa am loo xam ne lii euh, problème de chance la de mhm. manque de concentration benn rek dafay dal di basculer et mhm. d'ailleurs euh, ñëw nañu ba euh, fii nga xam ni nga yow nga dugal ma huit penalty man ma dugal sept penalty bon ce qui veut dire que équipe bi sore woon tawunu woon noonu Mhm, d' accord euh, dëgg la daanu nañ demi-finale ci kanamu Ukraine waaye teewul euh, ñi ngi waajal match ñetteelu place bi nga xam ne war nañu jàmmaloo ak Égypte euh, ci kanam tuuti lay doon ci ci ajuma ji naka lañu ñu war a jouer ñoom boobule match ak Égypte ngir ñu mën koo gañee waaw moo di li ma wax mental la rek il faut mm-hmm. aller au charbon. Mm-hmm. parce que fii mu nekk nii en ce moment li ma mën a wax si équipe bi moo di na si ay joueurs yoo xam ni tey jii antenne bi foo mu tourné effectif bi tourné effectif bi moo di la parce que moom sur le plan psychologique sur le plan mental xam na bu baax a baax joueurs yi. waaw foog mu xam nga dem nañu fi coupe d'Afrique au fale au Kenya daal di ko gagné mu di euh, championnat d'Afrique bu Kenya ñu gagné ñu ñëw dem au championnat euh, fale nga xam ni moo di dal di dem fale nga xam ni moo di au championnat euh, du monde alors championnat du monde bi xam nga xale yi dana am loo xam ni danañu ko xalaat bi nga xamee ni gagné nañu euh, le championnat d'Afrique bi ñu ñëwee le président de la République daf leen di daf leen sargal récompensé leen kenn ku nekk ci a reçu euh, presque euh, cinq millions de francs mm-hmm. alors léegi l'appétit venant en mangeant mm-hmm. et normal que bu ñu demee à l'étranger danañ di xalaat nag dañu ah man ma jël coupe d'Afrique ñu jox ma lii su ma jëlee le championnat du monde dana am leneen lu nu may kilé maintenant nag loolu il faut que antenne bi jéem a dindi ci bopp ñenn ñi nga xam ni danañu am un petit découragement. waaye mhm. bu moo tax ma ni ça va se gagner au mhm. waaw mental ba moo koy gagner. ndax fii mu ne ñu jël moo tax antenne bi forcément dana tourner effectif bi pour am ñoo xam ne ñii dana leen a indi ah jéem a essayer xool ba xam. parce que mhm. am na ci ñoo xam ne ñii si ñoom danañu xaw a am euh, disons ay déchets ay déchets yoo xam ne ba tey. Euh, dafa di euh, euh, par exemple ay déchets yoo xam ni lii ñu jëlee si défaite match bala dana samu découragé ñenn ñi par contre am na ñeneen ñoo xam ne ils ont le mental de fer ñooñu y a pas de problème mais par contre d'autres xam nga ak affaire boobu la déception dañu naan si à la mesure du du peut-être des illusions wala yu mel noonu mais xalaat boobu ñuy xalaat dana des si ñoom c'est vrai que bu leen antenne bi dugalee danañu jouer mm. mais le cœur véritablement le cœur n'y sera plus pour certains parce que ñoom li ñu bëggoon moo di dem final ne mm-hmm. serait-ce que dem final mm-hmm. bay mbiru sax décroché wu am médaille d'argent mm-hmm. mais fii mu nekk nii médaille de bronze la xam nga moom la ñuy euh, euh, disputer ñoom ak Égypte maintenant li ci des moo en tout cas il appartient nag à l'entraîneur foofu sur le plan psychomental am na loo xam ni lii bu ko mën na dal di tourner na neen mm-hmm. dëgg la euh, ñu wax ci condition équipe bi foofu la ca Malaisie bi ñu sukkandikoo euh, ci kuréel bi nga xam ne moo ëmb ñi am jafe-jafe wax ak dégg euh, équipe bi am na ay jafe-jafe logistique joueurs yi dañuy entraîner amuñu mayo amuñu itam ay dàll yi nga xam ne moom la ñu war a mën a entraîner woo ca coach yi ak staff bi ak délégation bi nee nañ blouson sax amuñu ko ak li ñuy bind noonu ci ci ci ginnaaw. blouson bi di wax seen rôle euh, jafe-jafe yooyu yow noo ko gisee. waaw euh, xam nga itam dafa di loo xam ni léegi mm-hmm. naa sax ñu ŋaañi ci fédération sénégalaise bu football. Mm-hmm. wax nañu leen si lu nekk wax itam euh, un peu ministère mais nag dama bëgg xamal rek pour ñenn ñi nga xam ne xamuñu le football mal malentendants du fédération sénégalaise bu football moo ko géré. parce que mhm. ñoom affilié wuñu foofu. Mhm. ñoom seen association la boo xam ni bii ñu def ko regroupé ñooñu ñu daal di dem joué ji ñu sélectionné ci ay nit ñu dem. Mhm. alors ña lay sélectionné nag ñooñu la responsabilité moo di ñi nga xam ni ñoo nekk ci euh, maanaam euh, euh, kuréel googu la nga xam ni ñoom ñoo ko créé. voyez parce que kii bi xam nga tey jii su fekkee noonu dafa nekk club boo xam ni euh, mu nekk équipe nationale boo xam ni comme bi ci soccer par exemple nga xam ni fédération sénégalaise de football moo leen jël en charge. Hmm. ni leen euh, CAF jëlee en charge ni leen FIFA jëlee en charge le bi soccer kooku moom. dem ba sax euh, soxlawul sax ñuy nekk do dafay am un délégué fédéral bu football bu leen yóbbu mais fii boo gisee délégué fédéral demul parce que ñoom amuñu si loo xam ni lii amuñu sax droit ni damay ñëw bokk si délégation wala lii wala lii mën nga nag mel na Augustin Senghor avec sa sagesse avec son esprit patriotique mhm. dal di ñëw dal comme football la rek mu dal di leen may ay ballon mal men ay mayo ak yooyu am na xaalis bu mu leen jox xaalis boobule bon montant ba xamuñu li la mais def na ka ba ñuy dem Kenya def na ka bi ñu def fii mais malheureusement nit ñi aussi dañu dul comprendre yenn yi parce que loo gisee dafa am loi ay charte yoo xam ni yoon wa foofu la jaar tey jii xam nga ni bu fekkoon noonu fédération noo jël en charge li mu di même euh, par exemple ay euh, footballu les U20 les U17 euh, ak i ñeneen ñi équipe nationale locale alors kenn ñemewul di leen seetaan surtout mm-hmm. fédération mm-hmm. fédération nag danañu def lu ñu mën pour jéem a leen jàppale parce que esprit ñoom ak ñi war a jàppale moo di le ministère te ministère si mm-hmm. boppam xam nga boolewu leen ci arbitrage budgétaire. Hmm. xam nga arbitrage budgétaire sur les fédérations yi nga xam ni ministère des sports moo leen di gérer ak comité olympique ñooñu mais forcément bu bu ñu leen defalulee loolu population bi suite boppam ñooy ŋàññ ñooy wax. c'est-à-dire hmm. ni c'est pas normal ak li mais nag tel n'est pas le cas. Hmm. voyez-vous problème bi yopp loolu rek la maintenant nag il appartient à l'État et que ñoom seen volonté bopp la ñu bon mm-hmm. déjà le grand geste moo di le premier ministre daan daf lañ daal di jox euh, le drapeau du Sénégal. ah ce qui veut dire que am na foo xam ne fii am itam fonk nañ leen fa. Mm-hmm. bi ñuy dem rek au Kenya presque dañu dem rek sur la pointe des pieds ah ba yàlla def lu gagné coupe maintenant nag accompagnement ba bon euh, nii nii war nañu toutes les bonnes volontés yu leen mën a jàppale jàppale mais li ma ci mën a wax rek moo di su fekkee noonu dafa bokk ci structure fédération yi wala yooyu la mais problème yi duñu ko am. Mhm. dëgg la dëgg la euh, c'est vrai FIFA organisé wu mais teewul euh, gouvernement bi war na cee mën a jàpp. ah oui absolument mhm. absolument waaw kooku mën na ci kooku moom euh, lu am la lu lu dëgg la gouvernement mën na mën nañu déjà je pense que. Euh, jël jël jël jël ay billet rek ah, parce que euh, xam nga ay léeg-léeg sax nga gis par exemple ay bis soccer wala nga gis FIFA dañu leen a envoyé ay billets wala yenn le football féminin ak ñooñu jàppale leen mais bii xam nga comme beneen structure la boo xam ne bokkul ak yii nga xam moom laay wax loolu moo tax ñoom si seen bopp bon euh, maintenant le le le ministère des sports. évidemment war nañu leen a geestu geestu boo xam ni déjà euh, nombre de billets parce que bi ñu demande pa crois y a trente cinq personnes ñoo waroon a dem mm-hmm. mais finalement ëpp na trente cinq personnes alors voyez yooyu yëpp ay billets la titre de voyage yoo xam ni ministère ñoo ko jël en charge mm-hmm. alors man c'est pas pour jéem a dédouaner le ministère wala yu mel noonu mais c'est-à-dire si organisation bi ni mu demee la quoi loolu rek laa si bëgg wax ci mhm. organisation wu euh, le euh, comment dirais je euh, le football des malentendants. d'accord Tandanka ndax yaakaar nga ni ab championnat malentendant war na mën a am. ça va être très compliqué parce que dafa am ay paliers yu ñuy jaar ba agsi si mhm. c'est comme le bus du soccer bi mu démarré woon rek man mhm. noonu laa koy gisee mhm. dafa am koo xam ne fa ngay jaar nànk-nànk ba bala muy ñëw te boo ñëwee rek dal di ni damay def un championnat boo xam ne régulier hein parce que les il faut les transporter au début di def ay ci ba pare aussi da xam ni da ngay transporter des joueurs yoo xam ne qui ne sont pas comme les joueurs yi nga xam ne ñoo nekk ci joueur équipe yi. Mm-hmm. wala di ci la dote du benn quoi. voyez-vous alors ça demande beaucoup de choses alors il faut chercher mm-hmm. des arbitres yoo xam ne c'est des arbitres yoo euh, yoo xam ne ay arbitre euh, euh, football spécifique boobu la la c'est pas n'importe quel arbitre. arbitre mm-hmm. yooyu da nga leen di fay. Ah, bu fa jógee aussi nga daal di am ay entraîneurs yoo xam ni c'est pas n'importe quel entraîneur qui peut entraîner une équipe de sourds-muets loolu itam nanu koy xoolaale bu baax a baax mm-hmm. maintenant mu des lan moo di les équipements des équipements ay war nga am ay maillot war nga am ay ay chaussures ak yu mel noonu des chaussures war nga am itam ay terrain mm. parce que calculer itam ni loolu Sénégal les infrastructures ba léegi le président de la République a fait des très très grands pas kooku moom yëpp gis nañu mais yëpp yi dafa dul doy koo ñu yokkaat ndax ñooñu ñëpp nag mën a parce que le but c'est que euh, imaginer le le le euh, le football des sourds suñu waree am championnat championnat bi ñëw vous avez le navétanes vous avez le championnat régulier ligue amateur ak yooyu mais organisation bu mag a mag la demander ba la ñuy dugg ci loolu. d'accord kon euh, ma dégg baax jumtukaay lu muy laaj ay moyens bëri na lool. ak ci ay ah, koppar itam pare na pare na de pare na moom. waaw li ma ci mën a wax daal moo di parrain mhm. parce que ça demande des choses yoo xam ne ah il faut que minutieusement ñu daal di ko defa nag gën ko structuré parce que dañu di ay aussi organisme yoo xam ne qui ne sont pas bien structurés mhm. parce que dafay balancer ci benn côté rek noonu daal di kii il y a pas un qui national boo xam ne bii vous avez dans toutes les régions mu am ay kileeg yooyu def mais il faut que loolu ñu organisation daal moo koy defar mhm. voilà d'accord donc euh, bëri lu muy laaj mais lu war a mën a nekk la mën na ne mën na ne ah. mën na ne mhm. mais il faudrait que ñoom ci seen bopp ñu nekk lu officiel mhm. ñu officiel le parce